Euh, discours politique bi ñu nekk ba tey euh, dans une certaine mesure bu ñu koy yëkkatee des fois mu xaw a tagatembe mën na entacher un peu la sécurité publique euh, dégg nañu Ousmane Sonko le jour de la Tabaski ñu ŋàññoon ko ci kat yoo xam ne yëkkati woon na ko ne Macky Sall de ak Kenya wàcc nañ ci ba Mozambique am na état islamique mm-hmm. nga ñëw la Mali il sont en crise te loolu lépp li ko waral homme politique yi la mm-hmm. nga ñëw au Tchad d'abord au Niger. Niger ils étaient en crise tey ñu ngi stabilisé wu. tu viens au Niger au au au au Tchad. il mhm. y a un problème politique. bokk l'État islamique est au Mali l'État islamique est au Niger nga ñëw au Tchad. en Libye Burkina Faso et même en Afrique euh, euh, euh, en Libye et au Soudan. Mhm. foofu yëpp da ngay gis ni y des fragilités sécuritaires ba laal la somali mooy lax Dakar ba Somalie aujourd'hui au Sénégal on a des problèmes avec la Casamance tey crise yi ma lay wax yëpp ah politique moo ko indi c'est des crises politiques yoo nga xamante ni dafay créer ay fragilités qui permettent au aux aux terroristes d'avoir un accès ñëw implanté wu af ay actes contrôler benn benn benn région crise souvent liée à la distribution des ressources. pour pour à la distribution des ressources problème de démocratie. problème de liberté problème d'état de droit c'est tout ça. Mm-hmm. Guinée coup d'état Mali coup d'état Niger euh, euh, euh, Tchad coup d'état Burkina Faso coup d'état le Sénégal baigne dans cet environnement d'insécurité et nous avons quand même des faiblesses au niveau de la zone sud nit ku am xel am xel am xam-xam jàng xam euh, jàmm li mu mën a li mu jàmm li mu mën a apporter ndax dëkk mënoo ko développer te amul jàmm nit ko am xam-xam xool tout ce constat toute cette fa tout set ligne bi dem ba ba ba ki am ay ay ay ay crise et crise politique crise économique waxtuñu foofu ay taux de croissance on n'en parle pas parce que ñooñu balaa nga naan ndam ne fa balaa ngay wax développement wax sécurité mm-hmm. yow nga nekk Sénégal nga xam ne Sénégal rek mooy le verrou ndax les groupe terroristes veulent avoir accès à la mer mm-hmm. moo tax ñuy ubbi ay front au niveau de de du Bénin moo tax ñu ubbi off de fronts au niveau de la Côte d'Ivoire Sénégal yàlla yàlla mi ngi ci ciy musal nga toog dans une zone comme la Casamance di fa wax yenn wax yi je que nit ku ànd ak xelam am xam-xam bëgg sa réew loolu doo ko wax. Mhm. mais nag c'est pas du lu mbett du du du du lu du lu du lu du lu ma bett man parce que Ousmane dafa bëgg affaire les les déclarations d'éclat li mu wax moo def lii benn jour bi ma nekk opposition avant may créer Dakar Time. l' ambassadeur des États-Unis daf ñu recevoir le chargé des questions politiques man Ousmane Sonko Mamadou Lamine Diallo tekk bureau Lamine Mamadou Lamine Diallo sax la leen recevoir xawma ak Kana on a discuté bi ñu paree le lendemain euh, Boun Abdallah dafa waroon a dem assemblée amoon na ay temps chaque année chaque kii Boun Abdallah day dem def genre communication Boun Abdallah war a dem assemblée ñu def réunion ak américain pare ñu dem Sonko dama mais soo bun Abdoulaye day dem assemblée ma ne ko waaw mu ne ma mais doo ñëw ñu dem ne ko Sonko maa yow gars yi xàmmee nañu bu ñu demee du ñu bàyyi ñu dugg. Mm-hmm. mu ma mais bu boobaa ñu buuxante ak ñoom le lendemain presse bi bindu bindu ko ma ne ko non man loolu yëpp pour xale la du ma ko def demal ma ñibbi le lendemain Sonko dem ñëw ñu bloqué ko mu buuxante ak policiers yi dugg ci otoom dem le lendemain presse bi yëpp bind loolu. forme de communication là. c'est pas une c'est c'est de l'enfantillage. <laughs> non de l'enfantillage c'est de l'enfant coup de communication non non non non c'est de l'enfantillage xam nga bu la neexee tey jii nga toog ba nit ñi toog nga rek ba set taxaw kaaloog nit ñi loolu communication la hmm. communication day am contenu day am objectif day nekk lu positif day am lu lay indil dara mais euh, mais mais loolu. créer peut-être fabriquer mise en scène. Mhm. mise en scène c'est comme nga dem dans la lutte nga gis gars yi di bëre kenn ñëw jël benn ndaa mbëkk ko kenn ki jël xuuf su. Mhm. ça c'est ça c'est pas de la com. c'est c'est une mise en scène c'est de l'enfantillage. Mhm. j'ai pas voulu man quand je fais de la com je je fais de la com lu positif luy apporter dara askan bi luy apporter dara apporter des Sénégalais mais dem buuxante ak ay policiers après. ça c'est c'est du n'importe quoi mhm. d'accord alors euh, dañuy dañuy dañuy dañuy euh, rester toujours dans le dans la question sécuritaire euh, am na beneen discours boo xam ne également tey tenir na ko Ousmane Sonko en parlant de rebelle mais nag gis nañu ne y a un peu une certaine manipulation boo xam ne ñu ngi ko ci def parce que ni ñu koy waxee rek ci internet bi moom c'est un peu compliqué parce que day dañ lay sectionnel sa ay kaddu ba jëm la mettre en mal un peu avec les gens mais dafa ne bu fekkee ne il s'agit de combattre Macky Sall nous sommes des rebelles gravité amu fa de. bon écoute écoute je xam nga euh, il n'a qu'à assumer les responsabilités de ses propos et de ses actes. Mm-hmm. je pense que euh, man euh, je m'attends à ce qu'ils disent pire loolu ça me surprend pas. toujours Donc, dans le cadre du jeu politique voilà. non non non mais non mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est c'est une déclaration qu'il a qu'il donc euh, je man je man il en fait li mu loolu moo gën a tuuti sax ci li mu li ñuy dab am habitude dégg mu wax li mu wax ni Macky dafa bañ Casamance tur ku am turu joolaa sax da lay loolu moo gën a grave loolu ay ay nous sommes des rebelles je pense que il a atteint le sommet lu mu waxaat lu mu waxoon rek dañu ne ku yéeg gëléem ba wàcc ko loo loo loo loo yéeg day war na gëléem gi ba wàcc donc euh, je pense que amul dara lu muy waxate man lu may bett quoi et puis moi je le connais xam nga moi je l'ai connu avant ñii ñëpp on a été dans wàllu Sénégal mhm. donc man je suis le premier et je pense que dama doon sax du ma waxte ñoom je suis le premier sénégalais boo lu mu wax du dëgg parce que dañu def politique dañu toog dañu xam dama ko xam lu mu la wax du dëgg mais véritablement mais lan la mu sa lu am ah mais est-ce que c'est wax ma benn dama la laaj wax ma benn lan benn benn mbir moom te ne wax na ko mu am. mais sur la wax nga ko sànq sur la question des 94 milliards euh, y a les corps de contrôle yi nga xam ne jot nañ ci waxaat la dernière fois le seen dernier rapport bi. est-ce que xam nga li xew ci kii kii boobu noonu. Mhm. ci ci ci 94 milliards yooyu noonu. li mu wax foofu amul. wax ma leneen lu mu wax lu am. lan moo tax amul. mais la Cour suprême a rendu une décision boo nga xam te ne nee na lu mu wax amul. la la la la justice également a pris une décision wax ni état bi na remboursé Tahirou Sarr 94 milliards am ba pare fay ko 5 milliards de de de de de de de de de maa ngi maa ngi arrêté dama fay sama téléphone maa ngi maa ngi décision de justice fii. Mhm. xam nga en fait fii malheureusement gars yi dañuy topp benn affaire mais duñ dem jusqu'au fond. dossier boobu la cour suprême amul recours cour suprême nee na li ko wax amul. la justice ba léegi nii waxaat nañ maa ngi arrêt bi wax na ci noo ma jox les références ne condamné nañu état bi au profit de Tahirou Sarr mhm. donc ça c'est c'est faux wax ma leen loo xam te ni Sonko wax na ko mu am jox ma benn rek bu nga am te lii wax na ko am na. bon on va laisser peut-être ces partisans. <laughs> passer non je moi je non pas ces partisans. oui ces partisans nekkuñu fi. Uh-huh. lu mu la wax amul. c'est pas trop dire mais xam nga nee la wax ma den lu mu wax am mu am wax ma nee naa la wax ma lenn lom te ne wax na ko mu nekk dëgg. on préfère être neutre. non mais c'est un constat. Mm-hmm. cest à que je suis là je suis mais le dire c'est c'est pas c'est non. Mm-hmm. Macky justice bi les sénégalais dañ koy critiquer ci ni mu téye justice bi c'est pas di nit nit ñi d'accord ñu ko far ak moom duñ duñ la poursuivre duñ la arrêter loolu le dire c'est pas être contre Macky non. Mm-hmm. wax ne Sonko lii mu wax du dëgg la dire c'est pas être contre Sonko. d'accord c'est ça la vérité. vous il dit des choses sur des gens mais euh, c'est un homme public les gens peuvent apprécier ce qu'il dit. Mhm. et ce qu'il fait. d'autant plus que dafa bëgg nekk suñu président. c'est normal ñu ko apprécier ko xool ko attention bi ñu prêter ci Sonko mën nañ ko bañ a prêter sax ci Macky Sall parce que Macky nekk na ko te day dem. Mhm. mais ñi bëgg a remplacer Macky noonu ñun la ñu war a amee pas-pas di xool ñi bëgg a remplacer Macky. maanaam ni ñu contrôler Macky parce que contrôler yi ñu bëgg remplacer Macky sax moo gën ñuy contrôler Macky parce que Macky toog na ba pare Macky nekk na président après mais ñi koy bëgg a remplacer il faut que ñu xool ñi ñan lañu seen i jikko par rapport ak seen i jëf li ñuy wax par rapport ak ni ñu mel yooyu yëpp ñun dañ ko war a def mhm. loolu moom suñu rôle la ñun la de la